xanaa di ko jullit yëpp dundee murit yëpp dundee ko cantaa ko dundee ko noonu noonu lañ ko dundee ndax bis bii ñëpp la defal ndax ku xam sëriñ Serigne Saliou ak euh, yërmandeem di mu yor bi muy defal liñ sëñ Béthio defal ko moom kese àdduna sépp la ko defal loolu moo waral bis bi di bisu ñëpp kon yell na ci kuy jullit kuy murit nga teew fi waaye nag yell na kuy cantaakoon nga ñëw ànd koog taawam bu baax bii di sëñ Sall ndigal cuubi waaye nag man moom kenn waruma fee gis di ma laaj ndax lan moo waral sa teewaay ndax ku ne xam ne bis euh, dama ci am cër ah loolu kay moom <laughs> relation sëriñëb taalibe way jur ak doomam maam ak sëtam ma duggee ci wàllu bokk sëriñ bi lépp la ci man ci wàllu bokk waaye nag yoonu murit yoonu jaayantale du yoonu bokk loolu moo waral mu doon suñu sang man ni ma mel ba àdduna sépp xam ko moom moo ma ko def waaw ci ndimbalu sëriñ Sall gisuma ci ak wuute ndax euh, ni ko way juróom la daan defee rek bi ma ko fekkee léegi noonu laa gis ndax ci waxtu wi boo ma sànn fekk sëriñ bi fii ci saal bi nii nga koy fekkee mbooloo mi ñëw ñii di indi seen addiya ñii di siyaare gisuma ci ak wuute ni ma daan fekkee sëriñ bi ci yooyu jamono noonu rek laa ko fekkee kon loolu nag mooy firndeel baatin bi nga xam ne moom la xalifa bi def te sëñ Cheikh mu sëñ Saliou fekk si ko ci na ñëpp ñëw ñu santale ko sëriñ Saliou sëriñ Touba daa woote ci bisam bu rëy bii di màggal ne nañ ko ci santale yàlla ndax lu mu am ci bis boobu la ko amee mooy tukkee bi ci géej gi waaye bis bi lépp lu sëriñ sëriñ Béthio am ci sëriñ Saliou bis bi moo ko war kon yéen na ci ñëpp ñëw santale ko sëriñ Saliou